scandale du jour vidéo Ousmane Sonko premier ministre il n'est plus opposant il faut que l'on le mu leer ci nit Ousmane Sonko n'est plus un opposant il est premier ministre il incarne une institution il incarne moy moy le gouvernement au Réunion Sénégal te euh, premier ministre pour sénégalais je ne sais pas ni mais sur le plan de la communication faut être d'accord ou ci j'ai le droit de donner mon opinion sur ça Il faut être d'accord ou combien de sénégalais ont perdu quelque chose ci manifestation qui se disent des pro Sonko donc xeex ndax Sonko ñi ci ñàkk seen bakkan am na ñoo xamee ni dagg nañ ci seen tànk wala seen loxo wala ba tey ñu ngi hôpital ndax dañoo gëm Sonko man nga dem ca ka ka ka e, waajuram wala ka ka ñàkk doomam photo ak ay waajuram en tant que ku falu ñëw ne ni léegi falu naa man maay premier ministre nga génne foto boobu moom laa gënoon a d'accord que nga génne photo boo xamee ni à côté ñu ngi lay teqalee comme nous avons le kay le président de la république j'ai vu même dans les réseaux sociaux des gens du parti passif, wala ay militants PASTEF nous gëm Ousmane Sonko deux, kon nga mais nous tamit da ñoo parce que ëpp ñu lu ñu parce que nous ñu ngi woon ci biir kaso am ñu pendant une bonne période ndax Ousmane Sonko wala ndax deux. pour Ousmane Sonko mais les anañu est-ce que warul photo wu ak ñoom kon bu logique bi lañuy top pour moi c'est une erreur de communication té staff bi ka bi and ak Ousmane Sonko ba ci kaka photo amna lo loo warul wona a nangu muy génn mëna donne une photo privée entre privé parce que mëna ñëw ak Bokar ñu ñu def benn photo privée boo xamé ni ñun la parce que c'est un souvenir pour moi mu donne souvenir pour moom militant bi c'est mais militant militant ou casseur kii nga jël Adou Boy ko tey teg ko nii photo ak moom bind ko euh, dalal naa diw ba photo ak moom euh, te euh, maa ngi ciy jaar pour nuyuwaale ñëpp ñi nga xamee ni comme moom bërki dem le ministre de des transports Malick Ndiaye maa ngi koy nuyu dama dem Dakar. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo photo bi nag boobu ba léegi sénégalais yaa ngi koy ŋaññi ñii di wax di yey yàbbi jur polémique ñii jàpp ni Ousmane Sonko war te mën a recevoir ki nga xamante ne dafa yor xeer doon xaañ xamuñu xeer bi ndax dal na nit xamuñu xeer bi ndax dal na ci butu nit xamuñu xeer bi ndax rey na nit xamuñu gis nañ daal waa ji di xaañ xeer bokkonte ñi nga xamante ñoo doon manifestel Ousmane Sonko da ngay gis nag. naafekk yi seytaane yi ñi nga xamante ne ñoom pour ñoom yàlla existé wul pour ñoom bàmmeel amul taxaw naan waaw war na koo mën a def ndax ku la xeexal nga war koo mën a remercier benn beneen bi ci topp ñu naan la waaw Macky recevoir na Awuskiti Macky recevoir na Californie d'accord awuskiti kan la doon saaga Macky Sall ak njabootam donc ça engage Macky Sall ak njabootam kalifon kan la doon saaga Macky ak Marème Faye Sall ça engage Macky ak xali Marème Faye Sall c'est personnel kii di xaañ xeer nag est-ce que dalul doomu jàmbur saaga yi Kaliphone doon saaga Macky rek la daan lal ak ñi ko jege ak ñi ko bëgg la daan metti mais reyul nit saagawul Kaliphone ba léegi gisuñu ko ci manifestation mu rey nit gisuñu ko ci manifestation boo xamante ne dafay dafay dañ fay gis ay laago ak ñi ñàkk seeni cër awuskiti fële la nekkoon ànd ak ñoom ba mu neex leen ànd ak ñoom ba mu neex leen dëpp carte gi commencé di leen saaga

waa la bu leen def lu bon ba pare di comparer lu bon li ma ki def Sonko tey d'accord naa c'est pas Sonko premier ministre moo recevoir booy bi moo nuyu booy bi c'est Sonko président Pastef ah Diomaye war nga tiit kon war nga tiit de ankay du seytaane nag xel sama xel lu mu xalaat laa leen di wax Diomaye war nga tiit ci lii ndax ñoom nee nañ Macky recevoir na ñee Macky dafa bon ànd ak ñu bon di def lu bon d'accord mais yéen da ngeen woote da ngeen baax vous incarnez quelque chose boo xamante ni amul ci àdduna moo ne ci yenn yiw jub jubal jubbanti dëgg ci ci lu sell man bañuma li tax Sonko recevoir ko ça mais li may métti mooy tout le temps ñuy comparer nee naa leen bàyyi leen di comparer Macky ak Sonko Macky dafa bon Sonko dafa baax kon yàpp Sonko weesu ngeen koy comparer ak Macky il faut respecter Ousmane Sonko te bu fekkee ni respecté ngeen Ousmane Sonko bu fekkee ni Sonko li mu leen di gëmloo yéen gëm ngeen ko ni changement ni rupture ni doo leen dox ci tànk maam Macky Sall kon lu tax ngeen di comparer.

wax dëgg fa yàlla c'est dommage et c'est xamuñu ci dara ñi daal ñoo ci perte ak seeni waajur Sonko président pastif recevoir boo yi kontaan ci loolu may leen sourire bi Diomaye war nga tiit